voilà salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ñu am mbégte ñëw ak yéen ci benn entretien ak Serigne Mbacké Ndiaye mu nekk un libéral très reconnu dans le domaine nekk ab Ablaye Wade di ko ndamoo nag di ko tiitaroo fu mu toll Serigne Mbacké Ndiaye di dox la retrouvaille de la famille libérale eh, ñu bàyyi leen déjà ngeen nuyoo ak moom mu wax leen xam naa lu mu leen indaaleel tey. waaw di la nuyu sant la ci dalal bi nga ñu dalal tey. Mm, Cheikh Tidiane di nuyu aw Cheikh Tidiane Kandé du ma ci du ma ci juum <laughs> di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mais rawatina ñu nekk ci bitim réew saa bu muy nuyoo ñu nekk ci bitim réew dama leen di beral nuyoo ndax euh, yàlla suturaal na ma ba tukki naa lu bare bare bari macha allah xam naa nekk bitim réew ni mu mettee donc bu ñu nekkee bitim réew seen xel nekk Sénégal seen loxo di dellu Sénégal su ñu amee euh, occasion wax ak ñoom dañ leen di nuyu sargal leen bu baax di ñaan yàlla it kàddu gu ñu fi génnee yàlla nay njariñu askan wi ku ci dégloo naqar nga jéggal ñu ko ci yéene mooy wax lu baax. Mm-hmm. ñu nekk ci phase bu historique ci histoire Sénégal maanaam ay élections législatives euh, ñu bëri tiitoon nañu quand même auparavant ñu bëri jàppoon nañ ne du am Sénégal ci violence la jëm. ñu dund ci ay situation yi xaw a jafe surtout ci parrainage bi euh, ñu gis euh, Sénégal pour la première fois ab liste di dem ci situation yoo xam ne quand même kenn xamul lu mu doon euh, benn bokk yaakaar seen liste proportionnelle bi mooy jàll Yewwi Askan Wi seen liste suppléant yi moom mooy moom mooy liste bu jàll pour Yewwi est-ce que lu mel noonu respecté na réellement li nga xam ne moom la constitution bi euh, dicté ci ci ci doxalinu ab élection waaw xam nga réew day dox ci ay principe maanaam fii ñu toog ci bi ñu nekk ci suuf bi di enregistré dafa am koo nga xam ni métier mooy filme yow sa métier mooy laaj man sama métier mooy tontu micro bi ma tiim xaw ma ci dara dañ naan ma taal taal nañ ko mu tàkk ñu laaj ma ma tontu ci li ma xam kii yor caméra bi li may laaj soo ko laajoon xëy na du mën a tontu loolu mooy kenn ku nekk boo yemee ci sa cër jox sa moroom war ma bi nga ko war a jox benn jafe-jafe du am dangay dem ci làmb ji wala nga dem ci match de football. action am arbitre sifflé ni faute la équipe bi ñu ne yaa def fot mën na bañ a d'accord ni moo def faute waaye faute la parce que arbitre nee na faute la. du tee ñu tiire ñu tiire ñu du tere ñu tiire ko. Mm-hmm. donc bu ñu nekkee ci réew moo nga xam ni tribunal dafa am cëram bu muy doxal te may fàttali ni amul kenn ci ñun koo nga xam ni gëmuloo tribunal lu Sénégal xam nga ñi lay wax yëpp naan la justice la justice ñoo la gën a gëm justice. firnde bi mooy koo ci tooñoon tey day dem tribunal koo ci tooñoon da lay porter mhm. foo gëmul doo fa dem ñaareel ba wax nga léegi list yi ñu annulé list yi ñu wadi àddina mooy doxe noonu boo déggee ci droit ñu wax jurisprudence mooy lu mësula am day am <laughs> su amee foog ñu atte ko mhm. suñ ko attee ba noppi acte booba bu leneen ñëwatee lu mel noonu ca lañ koy dënk mhm. ma jox la benn firnde 1993 dañu génn ci ay élections mu am ay contestation yu amoon jamono booba Christian Valentin Jacques Godin ñaar ñooñu jàpp naa leen ci bokk nañ ci avocat yi doon layul parti socialiste dañu dem France Christian Valentin personnellement moo demoon France. indi fa benn texte boo nga xam ni jurisprudence la bu wax ni bu ñu demee ci élection pour jël kaawu bi ñu xam ne moom lañ doon contesté jamono yooyu opposition bi nee na département de Louga élection yi jaaru fa yoon mais bu ñu annulé li parti socialiste am ci département de Louga terewul mooy gagné kon dañ koy validé jurisprudence boobu dafa amul France bi cas boobu amee Sénégal ñu indi ko teg ko atte ko ci kon li ngay wax nii dañu dem ay élection Fandène mu am contestation Cour suprême annulé benn list bi xam nga liste titulaire ak suppléant mm-hmm. mu annulé list titulaire je pense la annulé woon la annulé woon bay suppléant ba bi élection yi amee liste boobu ñu bàyyi woon mu jàll am na sax ay conseils yoo xam ca la ñu jàllee kon loolu jurisprudence la dellu si pour wax ni bu ñu bàyyee tribunal muy àtte te li ci gën a doy waar yeewi li ñuy contesté conseil constitutionnel ci benn réunion bi mu toog ci la leen jox dëgg Dakar te ñoom pertoon nañu Dakar. waaw. <laughs> ba pare xañ leen départ euh, liste national liste nationale. ñu ni conseil constitutionnel liggéeyam awul yoon. maanaam daal xar mi dañ ko rey ñu di ko lakk mocc bi nga ne dagan na mocc bii nga ne dafa médd mais ñu bëri dañu jàpp ne bu ko conseil constitutionnel defee c'est fay euh, dañ ko def rek pour wàññi acte bi effet bi nga xam ne loolu mën na ko am ci ci réew mi en terme de conséquence non ku liir ku jàng waxuma ñu nga xam ne dañuy waxandoo rek ci mbedd mi mais li nga xam ne moom la conseil constitutionnel joxe comme raison comme raison boo ko jàngatee boo ko jàngatee du wax loolu parce que conséquence la mu dikkul ànd mooy dañu wax ni ba yu ñëwee ni day remplacer waroon nañu bàyyi mandataire u Yewwi mu ram mu dugal ñëw def remplacement. Mhm. bu ko defoon à partir de ce mën na wax ni remplacement baax na wala baaxul. loolu xel nangu na ko. mais mhm. dañ ko bàyyi mu dugg loolu la conséquence wax ni d'accord ci. Mhm. lu ci mënti am boo jëlee lu mel ni manifestation yi am muy marche wala meeting. da ngay gis ko dem di déposer ji ne avec ou sans autorisation dama koy def parce que constitution moo ma ko may non parce que constitution bi dafa la wax ni am nga droit marche ak meeting da ngay def déclaration mais dafa la ni da ngay tënku ci loi bi nga xam ni mooy la loi 78 02 du 29 janvier 78 loi boobu lan la wax hmm. daf ni la yow miy organiser demal ci sous préfet wala ci préfet. nga déclaré. nga def déclaration. Mhm. wax ñetti nit ñi nga xam ñooy responsable wax li tax ngay def manifestation wax kañ nga koy tàmbali. Mhm. kañ nga ko bëgg a jeexal ak fan ngay jaar wala bu dee meeting fan nga koy defee. dellu ci ni autorité administrative muy préfet la sous préfet nag. Mhm. bu boobaa dina càmbar xool est-ce que loolu mën na nekk wala mënul nekk kon bu ñu yem ci rek. ñun en tant que politique li ñu constitution la. am nañu droit manifester li ñu constitution bi may. Uh-huh. ñu ci yem ba pare bëgg a xañ préfet wala sous préfet li ñu ko may. am na loo xam sa xel daf ko nanguwul. <laughs> parce que bu ñu la nee demal ci préfet wala sous préfet defal lii defal lii defali boo defee déclaration ba pare ñu convoqué la police nga def pour ñu def enquête ci yéen ñiy organiser mais loolu mooy mën nañ la wax waaw wala mën nañ la wax déet. waaw moo tax ma ni la. Uh-huh. bu ñu bàyyee tribunal ak cërëm. Uh-huh. bàyyi autorité administrative muy préfet wala sous-préfet ak cëram. bàyyi parti politique ak seen cër coow du am. mais mais ab le comment dirais-je un parti ou une coalition présente quand même une seule liste pour une élection pas deux listes. nga ni une. un parti qui va aller à des élections bu bëgg dem ci ay waaw benn liste lay lay présenté waxuñu la dangay ngay list liste bii di liste suppléant wala bii di liste. Euh, boo lii rek code électoral dañ def ah. les listes avec S. ah les listes bind liste avec S. muy liste titulaire ak list suppléant duggal ci code électoral list dañ ko bind ak S. am na lu tax jëf ko mais la moo tax léegi yéen loolu défendre leen ko ci Sénégal yi pour loolu mu mën a leer ci seen i. nopp man fu ma amee occasion wax ci wax wax naa ci comme c'est le aujourd'hui fu ñu amee occasion leeral ko leeral nañ mais est-ce que c'est pas trop tard parce que loolu. Sénégalais yi dañoo dugal ci seen bopp ne amul ñaari liste benn liste rek moo am. mooy liste de candidats yi nga xam ne dañuy dem ci ay élections. xam nga liste boobu nag war na mën am ay suppléants. xam nga man. Hmm. parti politique yi défendre loolu jaaxaluñu ma parce que dañuy wut dañu nekk ci làmb ji di bëre. Hmm. te xeex amul yaa ngi may gaañ. <laughs> waaw donc ñooñu jaaxaluñu xam nga ñu ma jaaxal. Hmm. ñi war a mel ni ay arbitre te doonuñu ko. mooy ñan ñuy tudd société civile. Hmm. def ci bari ñoo nga xam ni ay naafiq lañu je bi bien mes mots ay naafiq lañu parce que doo gis dëgg gi xam ne lii mooy dëgg. nga noppi te dañ nga noppi ci wala nga bàyyi ko dox lii firndeel li ay naafiq lañu dégg nga temps yële passé ñu naan nañu renvoyer élection yi. Hmm. nañ ko renvoyé nañ ko renvoyé. am na ñu ko défendre. alors ñoo ñëpp waa société civile la bi ñu naan nañ ko renvoyé mais juróom-ñetti liste la da la ñu ñoo fi nekk. Mhm. juróom-benn yëpp amul woon benn contestation ñaar ñoo amul contestation. mooy waa Benno ak waa Yewwi Askan Wi ak Yewwi Askan Wi. Mhm. mais ñàkk a respecté sénégalais yi moo tax ba sur huit listes six yi amuñu benn werante. nga bëgg taxaw ñu ne dañ ko renvoyer. donc ñoom respecté wuñu sax. la majorité. la majorité en réalité. ensuite. Mm. Mm-hmm. bi yeewee ne ñun bàyyi nañ waxatuñu. déggatul ñoom ñu wax. waaw kon xam nga lañ wax gëmuñu ko. te boo leen analyser ñoom ci seen biir ñu ci ëpp xëy na du ñëpp mais ñu ci ëpp ay politiciens yu échoué la ñu am politique dem ci société civile bi. Mm. am na ci nekk ñoo nga xam ne dama leen di rendre hommage. parce que dama gis ñu génne Sénégalais ci Sénégal ci guta boo jëlee ku mel ni ONG 3D bu Moundiaye Ciss yàlla rek moo tax may wax. Mhm, mhm. bu ngeen fàttali ko élection législative yi la passé 47 listes moo amoon. Mhm. ba ñu jàpp ni 47 listes bu ñu demee élection élection yi du jàll. ñoom ñoo defoon benn simulation jël 47 listes dugal leen ci benn benn benn bureau de vote jël 300 électeurs. woteeloo leen pour xam ñaata temps lay durer. Mhm. doon na am plus de vingt quatre heures te élection bi du jeex. Mhm. bi ñu defee loolu ñoom ci la ministre de l' intérieur génn benn tax ñu dem defe naa yóbbu nañ ko sax à l' assemblée pour wax ni boo duggee au moins da jël cinq bulletins. waaw xam nga loolu luy defar la. waaw ça c' est une société civile quand même. positif. waaye mais loolu la ñu soxla ci société civile mais du société civile boo nga xam ni da ngay nekk bukki bu soldaru bëy. nekk ay opposant saa boo amee une une une situation grave. doo leen dégg ñu wax ci exemple ñi ngi wax coowu Ousmane Sonko ak sa déclaration faite en Casamance. dinañ ci ñëw sur la Casamance dinañ ci ñëw mais juste juste exemple bi lay wax. Mhm. Mhm. am nañu bokk su si déggoo leen ñu ŋànk. waaw. et pourtant nit mën na ci ànd beneen dama ci ànd. Mhm. boo ci àndul nga ne ànduma ci. <laughs> c'est vrai. <laughs> pour wane ni. lu yàqu ci réew mi. ñëw ñi mel ni bokku parce que encore une fois je le dis je man ki nekk ci parti politique wane ni fii laa bokk ay position dama ko ci dama ko koy nangul. waaw parce que. mais ki nga xam ni day wane ni bokkuma fenn arbitre la di ruux fii di jeqi fële ñooñu laa mënul. loolu baaxul d'accord mais quand même quel que soit ak li mën a xew. Euh, élection yi napp euh, euh, finalement àndil nañu ay ay ay problèmes yi see gis nañu ay forces spéciales yoo xam ne tudd nañ ko fii est-ce lu mel noonu daan na am ci politique gu Sénégal ay forces spéciales ay kenn xamul yow mi nga xam ne traversé nga tuuti histoire du Sénégal c'est une première goulette la fi wala daan na fi am. waaw xam nga xam nga jamono buy dox. Mhm. méthode yi nit ñi utiliser day changer la preuve. tey ñu bëri bëri bu ñuy wax bu ñuy def politique bu ñuy def communication internet dañuy utiliser. Hmm. bu njëkk du woon internet. je me rappelle encore yu au début du PDS. Euh, bu ñu daan def génn ay communiqué dañ ko daan def ci ay enveloppe dem gare routière bi di ko yóbbante ci dëkk di ko yóbbante dëkk sàngam dëkk sàngam. dëkk <laughs> sàngam boo yeggee jox ko diw. jox ko diw bu kooku ñu wax ko ni yu woo ko téléphone fixe. <laughs> nekk mu ngi ñëw ñu ko yónnee nañu mu dem garage jël ko bu ko jëlee fexe nu mu koy. foto ko voilà ak fax yeeg ak yooyu voilà uh-huh. donc dafay àddina day sopp day day dox mais. Uh-huh. bu ngeen fàttalikoo en 1981. Uh-huh. jàpp 82. amoon nañu ñun au niveau de PDS li ñu tuddoon l'histoire des armes libyennes. Hmm. booba. ay ñu bokk PDS ak ñu bokkul PDS ñoo demoon Libi ba ñu demee Libi ba ñëw ñu am ñu ci jàpp ñu ni la leen fa yóbbu woon. dañoo wutoon ay armes. ay non formation lañ defoon pour la guérilla urbaine <laughs> ak yeneen ak yeneen yeneen yu mel noonu. loolu tamit ay accusation la woon rek euh, à l'époque waaw disons euh, mbunu ne accusation la woon rek parce que am na ñu ci jàpp am na ñu tribunal jugé condamné leen. jamono boobu président Wade maître Wade comme on l'appelait à l'époque def na pratiquement un an à l'étranger ñibbisiwul parce que jàppoon nañu boobu bu ñëwee ñu jàpp ko. Mhm. ba finalement ay puissance étrangère dugg ci muy France ak ñeneen ak ñeneen ba mu am ay négociation ba mbir ma ñu mucc ko seddal am na ay ñoo nga xam ne je les connais très bien ba léegi maa ngi leen di gis dañ leen jàppoon ci événement yooyu. Mhm. donc lu mel nii jëkkul tey. ok. man fekke naa ko. parce que baax na sa histoire réew dafa baax. absolument parce que ngi dégg ay politiciens yoo xam ne quand même am nañu posture benn bi ñuy wax ne lii musu fi am. xamuñu ci ay créer ay forces spéciales ainsi de suite. te lu gën a garaaw li amoon na fi. lu gën a garaaw parce que ñooñu jamono. Mhm. amoon na ci ay lieutenant de l'armée sénégalaise. lieutenant l'armée ñeneen bugguma sax di. tudd quand même tolluwuñu foofu quand di fàttali. parce que xawma tey ak seen njaboot ak yeneen ak yeneen. ak yeneen mais bon situation bu grave la bu ñu dundoon. Mhm. bu grave il est que armes yee ñu waxoon amul woon mais la ca des lépp euh, ay projet la nga xam amoon nañ ko à l'époque. déstabilisation guérilla urbaine yeneen ak yeneen ak yeneen. kon politique yàgg na fi am. ok bon loolu moo ñu andil ñu jàpp ñu mel nii ñu Mamadou Seck gis nañu tamit kii di François Mancabou euh, d' abord le cas Mamadou Seck bi nga xam ne évadé na euh, avant que service pénitentiaire di annoncer son évasion euh, les réseaux sociaux déjà annoncé sa mort est ce que lu mën a rafetal fii ci réew mi wala lu mën a andi ay antécédents yu graaw la ci doxalinu politique réew mi. waa xam nga nit lu muy mënti def da koy def ak responsabilité. Mhm. nit du wax ci lu mu xamul. man du ma ko def. Mhm. nit évadé na ma xëy ni dee na. Hmm. waaw ki nga di dee na yow boo biddee wala nga wax ci rajo wala ci télé ni dee na. xëy rek feeñ mu xëy feeñ looy wax. doy na waar. <laughs> donc nit day wax lu mu xam. Hmm. c'est-à-dire bari na ñoo nga xam ne tey tension rek mu leen intéressé naka lay def pour créer tension dans le pays nit évadé na ñu ngi koy seet bon. xëy na tuuti information li ma ci am néew ak bari du loo nga xam sax da ngay toog ci ay rajo ak i télévision di ko wax mais mën nañ yem ci liy wax ci presse bi parce que certainement que lii nga ci presse bi. kenn koo nga xam ne xaritam la je pense bu wax ne avant tabaski bi dajale woon nañ xaalis jox ko soxnaam boobu lañ ko gëj a dégg téléphone bu ñu ko wootee duñ ko jot. xarit bi ci boppam. waaw xarit waaw mm-hmm. nee na bu ñu mm-hmm. wootee soxna si. Mm-hmm. soxna si mu sekk. waaw dootuñu ko jot téléphone. donc yooyu yëpp. tax na ba li ma ci wax man mooy. dafa sombre ah nañ yónni yàgg. nañ yónni yàgg léeg-léeg nga gis nit ko wax ni woy diw mënta def nangam parce que munul sax rey weñ. Hmm. mais doomu aadama moo lëndëm. te xamoo kenn xamoo ko sax xamoo ndax dina naan ataaya. xamoo ko dara. Hmm? lu dul da nga koy gis rek muy sëg dem donc man bu mbir yu ma leen amee. damay wax ni mooy la mën a wax rek ci laa dellusiwaat enquête dafa am ñu ko war a def. Hmm. nañu bàyyi ñooñu def bu ñu defee seen enquête nag ba ni résultat baa ngi nii ku mu <coughs> neex nga gëm mm-hmm. mbaa nga bañ a gëm mm-hmm. mais mënuloo teel a depart rek nga daal di jël benn position ne nangam la nangam la nangam la te xamoo ci dara fekke mais ab malaat boo xam ne nee nañu feebaram dafa critique est-ce que jàpp nga ne kooku war na mën a évader ci hôpital bu amul ku ko dimbali bu non xam kuñ dimbaliwul mënoo évader ak hmm. ku mënti doon buñ la dimbalul mënoo évadé. souvent ku ku mais man wóor na ma nit ku évadé nañ la jàpp. ku évadé nañ la jàpp. absolument aw ma ci dugg. Hmm. parce que xam naa force de sécurité et de défense yi am na Sénégal ku évadé ak koo mën doon ak foo mën di jaar ñu jàpp la. ok donc ah, loolu yàlla na doon ko dund yàlla na yàlla sàmm ko. ba ñu gis ko mais yàlla na ko yàlla ah, def mais DC wu François Mancabou déglu nga tey sortie wu procureur euh, nee na sax waa ji da doon bëkk ay miir am na vidéo de treize minutes. Euh, est-ce que c'est ñaawul sa njort wala yow tamit da ngay limité wul ci professionnel. waaw xam nga man damay maandu nit dafay maandu nit génn àdduna maa ngi ci profité di jaale njabootam di ko métitlu parce que doomu aadama doomu adama la. Mhm. kooku génn àdduna tey ñoo bokk réew mi ñoo bokk lépp. wallaay c'est un concitoyen sénégalais c'est un compatriote donc kenn yéenewu ko lu mel noonu di massawu njabootam di massawu ay doomam. xëy na yàlla moo tudd noonu lay demee noonu la demee. Mm-hmm. maintenant lan moo ko waral ak lu ko waralul ku ci prononcé wu rek fi mu nekk nii sa xol ngay demee wala sa yéene ku ci parce que même procureur dégg naa ko bi muy wax. Mm-hmm. daf ni ci enquête pak information yi ma jot parce que fekkewul. Mm-hmm. fekkewul ay information lañ ko jox ba mu wax vidéo bu treize minutes. waaw loolu yëpp dina dinañ ko teg ci kanamu Sénégalais yi. kenn ku nekk xam nga lu yanu maanaa mhm. dama lay rappali toujours parce que histoire dafa baax mhm. Omar Blondin Diop prison gore la deewee mhm. ba mu dee ñu ne dañ ko rey dañ ko torturer ba mu dee ba léegi lan la gars yi bëri di wax gouvernement bi génn na à l'époque benn livre blanc pour wane li tax nan la deewee ba ñu waxoon à l'époque ni Omar est révolutionnaire boo nga xam jàppoon na ni deewam moom dina indil gouvernement bi problème boo nga xam ni jaral na ko mu sacrifier boppam pour mën a renverser le lu ci am lu ci amul yàlla rek moo xam. Mhm. donc histoire yu mel nii dama la xëy yàgg na am ñaanuñu ko yàlla nag mais tant que àddina di di di am. Mhm. yu mel nii di am maintenant ku nekk da nga war ànd ak sa dal ànd ak sérénité parce que naqaru jàmbur. Mhm. kenn du ko exploiter kenn du profiter ci deewu doomu aadama. pour de régler say problème yu bopp kenn du profiter ci tiisu doomu aadama pour de régler say compte je pense que moralement c'est inacceptable mais est-ce que Sénégal tamit warul weesu ci ay prisonniers di dee ci prison ci ay conditions yoo xam ne quand même euh, ça ça ça ça à douté mais loolu mënul moo ko àddina ñoo ànd kenn mënu ko fi jëlee du Sénégal du États-Unis du France du FEDEP toujours nga gis ko dans les hmm. pays même développés. ñi nga xam ni jàpp nañu ni mais attends am na benn kayit bu ñu boo nga xam ni c'est un il était français je pense bu ñu fi jàppoon y a point de dix ans de cela ba mu échappé fi dugg ci géej gi. ñu jàppaat ko. <laughs> loolu ak àddina d'ailleurs la preuve boo gisee ci code pénal ak code de procédure pénal ñu prévoir ci évasion d'un détenu prévu et condamné par une peine de. Mmh. ça veut dire que mu kenn mënu ko fi jëlee. d'accord. bu lu bees nag day metti mi ngi mel ni dee. Mhm. ku gën a mettale rek booy gën a bees. gën a bees la c'est mhm. mais ah, mhm. nag ku nekk di lu mënti xew. parce que gis nga àddina bu la buy tourné tey da ngay nekk au pouvoir su bëgg a nekk à l'opposition. moo tax may wax toujours ni nit ki faral fu la neex mais principe yi bu ko wàcc. te sóoraale ëllëg. sóoraale ëllëg. lii nga xam ne moo am tey ci manque bu encore une fois ginnaaw bu ma ko métitloo. li may ñaan yàlla mooy mu am ci enquête bu leer nañ ñu mën a situer toutes les responsabilités parce que loolu mooy intére ñëpp mooy intérêt police mooy intérêt ay mbokkam mooy intérêt la justice mooy intérêt les gardes pénitentiaires ñëpp xam exactement lan moo xew. parce que quand même le rôle de la prison n'est pas pour que des gens y aillent pour mourir ah. Euh, euh, prison euh, ab kër la boo xam ne day yaraate rééduquer nit kii defaraat sa jikko ainsi de suite bu dee léegi ku dem prison surtout bu sa kaa rek dee moo la fay génnee mais loolu man na. mën na tax ba sénégalais yi dootuñu wóolooti. faut pas exagérer aussi. waaw non dama nekk kaa siw yëpp souvent ñi siw yi des dossiers yi siw yi. waaw xam nga suñu prison yi c'est également nekkoon ay mouroir. ah voilà on peut pas il faut pas prêter comme ça aussi. parce que nit ki. Mhm. bu doon ne ka ko kañ ko dénk parce que garde pénitentiaire bi tribunal ñoo la dénk doomu aadama ni la surveiller ñu ko bu mhm. buñ ci ju jublu woon nga dee duñ la yóbbu hôpital Mhm. kon dañ lay bàyyi prison nga dem c'est vrai <laughs> loolu am na solo et à Ziguinchor aussi ah nous avons vu euh, le cas Ousmane Sonko tenir fa benn discours boo xam ne ñu bëri jàpp nañ ne discours waasoo la nee na Macky Sall buggul waa Casamance dafay buntu xatal waa Casamance rawatina boo santé Diédhiou Bassène Sonko ainsi de suite et oh, souvent damay jël Ablaye Wade comme modèle opposition bu mu fi def ñëpp xam nañu ko il a été le plus long acteur politique ci opposition est-ce que ces discours là yi nga xam ne dafay andi euh, waaso wala sax communautaire le communautarisme ci ci ci ab réew est-ce que loolu dund ngeen ko dem ba avant ñoo wax déjà le cas spécifique de Ousmane Sonko. xam nga man du ma wax ci discours bi. Mm-hmm. mais damay wax ci accusation yi boo waxee ci accusation yi di nga xam ne discours bi tegu na yoon wala teguwul yoon. li bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax. li président Macky Sall def en Casamance ku bëggul région doo ko def ku bëggul sa réew doo ko def ku bëggul waaso doo ko def tey fii ma toog di wax ak yow parce que man la l'habitude dem Casamance la Casamance est totalement désenclavée tey ngay xëy ndekkee Dakar añee ji Ziguinchor. waaye surtout le pont de. dafa rafeñe dafa rafeñe mhm. pont Farafeñe encore une fois je lance un appel aux ngir yàlla tuddee leen ko pont Moussa Ngom. musaa Ngom Moussa Ngom artiste artiste. très grand Sénégambien bañ na ko ba dara sol ñaari chaussée du niroowul pour wane ni Sénégal ak Gambie benn. <laughs> c'est vrai pont de Marsassoum. Mhm. ak mënuma lim li Macky Sall def en Casamance en termes de désenclavement bokkul di bluff ak yéen mënuma ko lim. la beaucoup de budget. budget en termes de. route la beaucoup de fuladu. pont. Mhm. Euh, électrification. adduction d'eau. ak ay pont yoo xam ne yoo nga xam ne kenn mënu amul amul ampleur pont wala bu Gambie mais pont la yoo xam ne daan na yàq diggante ñaari dëkk. mais absolument ay waaye donc loolu mhm. yëpp nga def ko ci dëkk. nit mënul ñëw di la accuser naan da nga da nga da nga da bañ dëkk boobu. ensuite Casamance mais ñun ñëpp nous sommes des Casamançais. je veux dire tey boo demee Casamance ñoo fay fekk Ndiaye Diop Faye. surtout Ziguinchor surtout Ziguinchor. rappelons que Ablaye Sy a été maire de Ziguinchor Ablaye Sy qui est de Podor. Mm-hmm. Mamadou Seck. voilà moi j'ai un ami responsable PDS qui malheureusement il est décédé maintenant qui s'appelle Leyti Faye xam nga ne Faye kay cosaanewul Ziguinchor. Papa Ané Seck. ak ñeneen ak ñeneen donc ça c'est un mm-hmm. boo nga xam ni. Assane Seck de Ziguinchor aussi xam nga c'est un boo nga xam ni. man ñi ci topp di wax di waxaat sax ñoom lay am lu may leen di reprocher. mais c'est pas un discours politique. pour créer de l'impact. c'est politicien dans un contexte politique aussi est-ce que est yóbbu ko foo xam ne yeggu fa. Euh, non déggee ko nopp politique quoi. wax ne vraiment c'est juste un discours politique tenu par un homme politique par un acteur politique. xam nga man li ma jàpp mooy de la trempe de Ousmane Sonko. xam ma mooy. Mhm. mes amis de la majorité lu Ousmane Sonko am ñoo koy may. Hmm. parce que bu demee ba diig ba kotam wàcc dina créer benn affaire boo nga xam tout le monde parle de lui. gars yi di ci wax di ci wax di ci wax. te dañuy wax ne en politique ñu wax ci yow lu bon moo gën ñu bañ a wax ci yow du tout. Hmm. théorie boobu lay appliquer et di ko ci topp mais ku nekk xam na ni. pour yow dañ ko war a ignorer ci ay waxam. bien sûr y a des jarul tontu xam nga ñu ko tontu les Casamance eux-mêmes man je discute en permanence laa la wax en permanence. avec des sages de la Casamance ñu ngi may déglu je discute en permanence ak l'académie des mille cent onze c'est-à-dire mille cent onze chefs religieux Casamance qui sont entre la Casamance la Gambie et la Guinée-Bissau benn académie la ok ñoo nga xam ni macha allah d'ailleurs ki koy diriger mooy le professeur Kourouma il m'a dit un jour Macky Sall a fini de désenclaver la Casamance ce qui reste c'est de démarginaliser la Casamance ma ne ko loolu mooy lan. mu ni ma fu yoon war a dem bu dee fukk huit yi def na ko fu cinq pont war a dem def na fa trois fu dix école war a am def na fa sept ainsi hmm. lan moo des fukki doomu Casamance yu mu war a jox responsabilité cinq la jox. na ci dolli trois. waaye. <laughs> loolu la tudde démarginaliser la Casamance. pourtant mu ngi ciy góorgóorlu tamit daal. Ah. mi moo tax aussi vraiment. <laughs> yaakaar naa ni ah, ah, après les. lii xam-xam la. quand même bien sûr après <laughs> naa mhm. ay pas important. Mhm. ko def. pour loolu gën a jëm kanam. mais quand même yow en tant que acteur politique xam nañ ñu fi nga toll ci dëgg-dëgg politique tu sais très bien que Ousmane Sonko lu mu tenir c'est juste un acte politique. mais moom ci moom mi ko wax gëmu ko ah voilà ça c'est il faut il faut comprendre. moom mi koy wax gëmu ko. <laughs> même bu su ñëwee reprendre ko. mais gëmu ko voilà nañ ko jàppee rek. wax ko comme ça parce que bu ñu ko débanaliser bu ñu ko banaliser rek du am benn effet. waaw c'est ça mais si on le tient sérieusement sérieusement comme ça jàpp na dëgg-dëgg lii lu mu wax nii dëgg la ainsi de suite mën na créer ay incident non li mu wax garaaw na. waaw mais du am benn effet. mais nag voilà xam nga lu tax du am effet. Uh-huh. ñamuy waxal maanaam ñu dëkk Casamance. ñoo gën a xam uh-huh. ku daan xëy di dem amul fu mu jaar. man xam naa ci dara. yoonu yoonu yoonu Gàmbi gii. voilà non ñun lu ñu ci daan dund yàlla rek a ko xam. kon daal laa dëkk <laughs> d'accord donc discours boobu vraiment il faut que ñu banaliser ko jarul ñu ko yóbbu fu mu fu mu fu mu yëgul mais l'enjeu des législatives pour le président Macky Sall euh, ñu bëri jàpp nañ ne warul dem ci troisième mandat am ñu théoriser. que la démocratie yow defe naa ci ñooñu nga bokk xam nañ li nga fi waxoon ci mbirum troisième mandat. je suis le <laughs> yooyu nga nekk fii nga ko waxee woon. est-ce que yaa ngi yaa ngi ci loolu ba tey jàpp nga ne vraiment Sénégal déjà euh, waruñu war nañu weesu ci ay mbirum limitation des mandats parce que c'est le peuple qui choisit son son président de la République. mais loolu mooy démocratie. Mhm. dimanche dernier curieusement dama seetaan France 24. ma gis le président Paul Kagame. Kagame moom wax na ci lu leer moom. bari na ci Sénégal yëpp rek xam nga Kagame rek lañ fàmm. <laughs> alors quand le gars le journal lui a dit. man daal y a des élections en deux mille vingt quatre est ce que da nga doon candidat. <laughs> mu ne c'est vingt ans encore pour vingt ans encore je suis prêt à être candidat. gis nga nous en tant que parti politique. Uh-huh. ñu ngi préparer un colloque bu ñu war a def en principe au mois d' avril. oui te colloque boobu bëgg nañu. tous les pays africains au moins kenn jóge ci dans chaque pays africain ok sur la gouvernance en Afrique parce que tubaab yi amuñu pour ñëw di ñu imposer ñu naka la ñuy doxale suñu réew. mais ñoom te duñ doxalee noonu ah. parce que l'Amérique lu ñuy wax Amérique c'est pas la ça ne respecte pas. c'est ça la définition du mot démocratie. gis nañu fi diggante diggante euh, Donald Trump ak Hillary Clinton Hillary Clinton a eu plus de voix. mais elle n'est pas devenue présidente voilà, de la république. voilà donc donc le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. ñun ñu war a am fulla ak fayda. am suñu modèle loolu am suñu modèle bopp ci loolu la ñu taxaw. xam nga da ngay dégg ñu ni en parlant de l'histoire du Sénégal l'histoire dafa am solo. Mm-hmm. ñu ni ma Birima mi nga xam ni bu waxee Kajoor ren balay waxati di déwén. Birima buur la woon. waaye mm-hmm. Damel du Kajoor. Mm-hmm. day ñëw taseeg tout le peuple ñëpp ñëw toog mu ne Kajoor lu ngeen xalaat. ku nekk wax loola ku nekk di wax moom lay jël moom lay doxal ba déwén c'est une forme de gouvernance oui oui c'est une forme de démocratie. très respectable même. et voilà bien sûr donc tey xëy na nekkatuñ ci loolu mais man dama wax ni combat bi jar a mëne mooy élection di jaar ci yoon. Mhm. dès lors que élection mi ngi jaar ci yoon. kenn ku nekk am nga droit doon candidat mille fois. mais est-ce que élection mën na jaar yoon fii ci réew mi xam nañ ne gars yi quand même. Euh, Kande. fan la ñu mën lan la ñu mën a teg ba mu mën a jaar ci yoon. loolu mooy problème 93 mhm. ak léegi. depuis bi ñu adopté le code consensuel de Kéba Mbaye en 1992 dem ci élection en 93 ba fii ñu toog di wax. Mhm. amul benn élection bu nit mun a sàcc Sénégal. Hmm. amul. personne kenn kon gars yi dañuy wax nii rek. mais yow tamit. mais Abdoulaye Wade waxoon na fi mag Sall kenn mënu ko gagné ci élection. loolu dafa am lu muy wundu. mais parce qu'il est majoritaire. ah loolu lay signifié. loolu lay signifié amul leneen. signifié yow ne président Macky Sall nekk na premier ministre nekk na ministre de l' intérieur organisé na élection organisé waat naa ko. kon xam na xam la ñu def ba chaque élection lay wax. bu loolu lay signifié. déedéet li am Sénégal amul ci benn réew dans le monde. en termes d' organisation des élections amul ci benn rapidement ma jox la processus. Mhm. da ngay wut sa bulletin na naissance soo extrait de naissance am carte d'identité sur la base de cette carte d'identité nga am carte d'électeur mmh. d'accord mmh. carte élection di waaj a jot ñu def communiqué mhm. ne carte yi génn na waaw maa ngi dégg démb rek le les le président de la commission de Louga di kaas de deux mille cartes ma nga fa kenn jëliwu ko bu ñuy distribuer carte yi tous les partis sont représentés. la Sénat est représenté. du dëgg. parti yëpp toog administration bi toog ñu distribué carte yi jeex le jour des élections tous les partis sont représentés. Sénat ngi toog bu ñu wàññee bu ñu voté ba ngoon jot bu ñuy wàññi. ay observateurs étrangers di toog. bu ñuy wàññee sax dañuy génn ci biti woo ay scrutateurs. société civile bi toog ñu ñëw toog. bu ñu wàññee ba pare ñu bind ku nekk ñu jox la sa procès verbal dûment signé par le président par les représentants et par la Sénat. Mm-hmm. nga yóbbu. organe de presse yëpp toog. loolu laa tax man la li am Sénégal amul fenn. la presse la presse li taxaw nga xam ni presse bi ñooy joxe résultat yi. waaw waaw te mësoo dégg presse bi joxe résultat PV bi leneen nekk ci. Mm-hmm. donc sàcc mënul am je reviens ci sa question préliminaire. Mmh. dañu organiser euh, colloque boo nga xam ni bëgg nañu tous les pays africains soient représentés à ce colloque parce que encore fois ñun li ñu gëm mooy li ma la wax ni léegi te loolu par expérience moo tax ñu di ko wax. la démocratie par le peuple. par le peuple. ku peuple bi doyloo rek. na la fal mille fois. yow la doyloo loo xam nga ni man nekkuma ci débat wu troisième mandat ou quatrième mandat wu Macky Sall. <laughs> ça dépasse. finalement am na yi la ciy fekk si. oui bien sûr dafa mel ni c'est un courant d'ailleurs buy judd dans yoo xam ne. absolument euh, foofu la nekk depuis très longtemps d'ailleurs donc loolu mooy démocratie. maintenant élection législative yi ñu dugg. Hmm. xam nga c'est dommage nous avons une opposition dañu jàll complètement ak côté. ah bon boo dégloo. seen discours dañ lay wax assemblée de rupture maanaam li woon bu mu amati. Mm-hmm. mais amul kenn ci ñoom ku la wax nan lay defee rupture tey bu doon nii par exemple dañ ni. Euh, nee na nee nañu kenn du fi voté loi góor jigéen xam naa peut-être loolu mooy rupture. mais mais mais loi góor jigéen <laughs> buñ ñu ci tax a wax nag. Uh-huh. parce que xam nañ fand la góor jigéen yi nekk. Ah attention. attention faut qu'ils arrêtent ce débat. góor jigéen ñi. xam nañu fi ñu nekk. ñoom waa opposition bi. mane ni Sénégal yëpp laa wax rek xam nañu fan la góor jigéen ñi nekk avec des preuves à l'appui qu'on arrête ce débat. Ah bon. te ñuy wax lu sérieux wax lu jëmale réew mi kanam. mais loolu mooy seen cheval de Troie. attention xam ngeen loolu yéen waa pouvoir fu mu toll nii moom la ñuy wax sénégalais yi. bërki dem ko à la réunion de l'OMS. Mhm. bi ñu indee benn texte boo nga xam ne day valider wala day protéger góor jigéen ñi. tous les pays dañ ko voté ba mu des Sénégal ak Libye loolu doyul. doy na. le premier ministre de Canada ñëwul fii avec le président Macky Sall. président wax ko leer nañ. Obama ñëwul fii. mu wax ko leer nañ. alors toogaat ci télé bi waxaat ko de plus. faut ñu bëgg a jël loo dañ argument boobu sax ko bëgg a utiliser xam nañ ni ça ne passe plus. mais oh, sàmm jikko yi encore une nañu benn combat finalement ñu bàyyi ko mu sedd. parce que xam nañu ni la réalité elle xam nañu position yi nga xam moom le président Macky Sall jël par rapport à donc dama bëgg bu ñuy politique nañ yem ci champ politique. mais politique d'enfumage bi parce que fii réew mi. enfumage bi dafay bari fu ne ci ñaari boor yi ci opposition bi comme ci pouvoir bi. gis nga Sénégal dama lay wax Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est comme le monde. c'est devenu un village planétaire. le Sénégal. lu yeddu sa kër france sama kër. dëgg la nit gi fi nekk di ñu bëgg a rey ci dëkk bi. nee na il de la société civile. di jox ay leçons guddeeg bëccëg suba on l'a arrêté en Suisse. Hmm? sur des faux <laughs> à l'époque l'ambassade du Sénégal moo fexe ba ñu libéré ko. waaw hôtel ba mu nekkoon falaa nekkoon. <laughs> xam naa kooku mën nañ jox leçon ah. faut que les gens. mais il faut dénoncer il faut. non non non il histoire. xam nga lu tax. da ngeen koy fàttali nit ñi tamit parce que baax na quand même ngeen di fàttali histoire nit ñi seen jaar jaar ak seen base. man wax bu ñaaw du génne sama làmmiñ du dugg ci nopp nit. da nga ma koy dee. man laa ko wax dama bëgg nit ñi xam ni xam ni. bari nañu fiy wax. xam nañ waaw kay. meluñu nu ñuy. voilà man du ma jéem a jox kenn leçon parce que tanewuma kenn ay doomu aadama la ñu. kenn ku nekk ci ñun na ma ko yàlla baal ak ñi ma ko war a wax. Mhm. am na looy nëbb lu bëggul ku la ko xamal. bu guddee da ngay dugg sa néeg tëj sa. ok donc si président si si par par malchance pour vous Benno Bokk Yaakaar bu gañewul législative yi maanaam mu am la majorité absolue su ko amul est-ce que donc dafay firndeel ne président Macky Sall amatul fu muy jaar pour dem wuti beneen mandat dafay firndeel ne sénégalais yi woon nañu ko. est-ce que Macky Sall day wut mandat du wut mandat pour man le débat nekkul ci foofu. Hmm. est-ce que danañ am majorité duñ ko pour man du débat. du du débat. non. y aura la majorité pour Benno. absolu loolu du débat. ah bon dama lay fan la élection di am. Mhm. Dakar Casamance Touba ñett dëkk yooyu moom ça va être âprement disputé nañu xam naa si la situation du pays xam naa li xew ci dëkk bi. Mhm. mais bu paasee ñett yooyu. li si des yëpp. non yow tamit yow y aura pas d'élection.

bon moi j'estime que euh, Benno war na ci mën a perte peut-être quinze logiquement mais pour le reste. Euh, mais yàqul dara ci majorité. mu war a mën a am assemblée nationale. et c'est même bien parce que nag aussi mënoo nekk en démocratie gagné fépp. finalement day ëpp. ça va être score soviétique mais bu bu perte Dakar perte si Touba peut-être Ziguinchor aussi. peut-être peut-être foofu la mhm. c'est des qui pose problème. aussi à benn département bi. pas les autres yeneen ah, yeneen localités. y aura pas de difficulté danañ ci waxaat yàlla nañ ci yàlla yóbbu. Ah. <laughs> Ah, <laughs> ah bon c'est bien maintenant le troisième mandat le président Macky dafa war a wax mu leer wala jàpp nga ne mën nañ ko bàyyi ci non oui non ni yoon bi. yaa ngi rappelé bi ñu agité la question. Mhm. j'ai été le premier. nañ ma ko baal nag ni ma koy waxee ni du lu may xëcc. la mhm. couverture mais c'est l'histoire également. j'ai été le premier à présent vous n'avez pas le droit de dire oui ou de dire non. quelques jours après. Mhm. Moustapha Diakhaté mën nga ko visiter euh, vérifier li ma lay wax nii. Uh-huh. def benn sortie après que Macky Sall répond ci ni le président Macky Sall conforte Serigne Mbacké Ndiaye dans sa position réew lu nekk dafa am jamono. Hmm. jamono politique dafa am jamono liggéey dafa am d'ailleurs moi je pense que xaw ma nu ñu koy defee mais war nañu fexe ba après élection yii assemblée bii toog. jël ñaari mesure mhm. la première mesure du tey laa ko jëg wax dama koy répété waat mooy naka la ñu def pour délosser dal dans la classe politique dans okay. le mhm. te jàpp naa ne li koy li koy gën a faciliter mooy fair voter une loi d'amnistie boo ko xam ne day libéré yenn acteurs yi ñoom Karim ñoom Khalifa Sall comme ça gars yi ñibbisi mhm. jàpp naa ne loolu du tey laa ko jëkk wax je le répète euh, depuis un au moins ma di ko wax je le répète aujourd'hui deuxième mesure bi ma jàpp ni prochaine assemblée war na ko jël naka la ñuy fexee ba élection présidentielle bii di ñëw ak élection législative bii di ñëw taqaloo hmm, bu ñu ko deful le même jour hmm. ce qui est possible parce que yaa léegi yaa ngi doon wax histoire jusqu'en 1988 Sénégal dañ doon woote même jour élection législative municipale et présidentielle. ah bon ah oui c'était ça jusqu'en 88 xam nga lu indi. Euh, séparation séparation. Mhm. élection 88 dafa bari woon incident xeex dëkk bi ñu taal ay station essence xeex bi ñu combee ci dëkk bi ñu jàpp ay nit yu bëri. kon musiba politique yàgg na am ah Sénégal de bëri bëri bi ñu leen jàppee à terme mu am dégel ñu waxtaan créer benn commission boo nga xam ne commission cellulaire moom la Kéba Mbaye jiite woon. Mm-hmm. ba ñuy discuter foofu opposition bi à l'époque nii il faut limiter le nombre de mandats à deux. Mmh. donc ça c'était à partir de 92 91 92 bi ñu nee nañ ko limiter la délégation du parti socialiste Mamadou Diop moo ko doon diriger ak je crois Ablaye Matar Diop. Mm-hmm. ñoom ñu ni bon d'accord nañu la limitation mais dans ce cas dootu nekk un un maanaam cinq ans mais dañ ko def septennat. muy sept ans. dès lors que législative ak municipal seen mandat cinq ans la présidentiel seen mandat nekk sept ans élection yi mënatul ànd. mais maintenant que député cinq ans la maire cinq la président cinq ans la mais war nañu organiser wu ba nga xam ne. muy ànd ñu koy organiser même bu ñu ko deful benn bis. ñu def ko ci benn période boo nga xam ni dina am quatre ans au moins yoo xam campagne électorale du am. dëkk bi dañuy liggéey ñu jublu ci liggéey. c'est vrai ah li nga wax ni li nga wax ni dafa am solo municipal. man nañ jël 15 jours pour organiser trois élections boo boo defee municipal tey. en une semaine en cinq jours dans un an nga def législative. Hmm. un an nga defaat présidentielle. dëkk bi ci ay campagne électorale rek c'est vrai mais lii est-ce que yaa ngi wax sa xarit président Macky waaw bon d'abord dama koy wax sénégalais yi. donc encore une fois je résume la prochaine assemblée deux mesures. Hmm. benn bi mooy une loi d'amnistie. benn ñu xool ñu cumuler élection mooy ñu def ko ci benn période. surtout dès le départ assemblée bi dañuy wax ni par exemple mandat bii di dugg nañ ko yóbbu sept ans je n'en est-ce que dañuy wax ne mandat président nañ ko xëccaat est-ce que on trouvera la formule. président soxal na la palais de comme eh? ministre conseiller quand même. <laughs> président soxal na la palais. Euh, <laughs> <laughs> man parce que quand même li ngay wax ni c'est pas politique c'est technique. lii dañ ñu soxla ci acteur politique en réalité man passé naa far Mhm. mais passé naa fu may farfarloo. en réalité lii la ñu soxla ci réew mi. soxla on attend des acteurs politiques. Mhm. des propositions pertinentes. Mhm. parce que réew mi am na fu mu toll surtout avec les enjeux du pétrole parce que sànq dama la wax ne assemblée nationale ñiy wax ñëpp naan rupture waxuñu lu ñu defee rupture. est-ce que tey bu ñu ni woon Yewwi gagné na je donne un exemple comme ça. Barthélémy Dias attends ñu ni Barthélémy yaay président assemblée. mu ñëw mu Moustapha Niasse installé ko. jël oto yi mu yoroon jox ko jël logement yi jox ko jël budget bi jox ko mu continuer de doxal est-ce que loolu rupture la. du rupture du mhm. or ñii wax rupture. proposé wu ñu dara. surtout que président mën na doxal par ordonnance. alors xam nga lan mooy rupture. Mhm. classe bi te dama leen ci interpeller kenn nanguwu ci wax nañu projette wu nii pour les élections législatives dañuy supprimer les listes nationales. Mmh. parce que liste nationale du démocratie. Hmm. kenn de xam nga yow bu la neexoon tey bu neexoon Macky Sall tey nga doon député. waaw dugal ma liste nationale def ma ci position bu baax. na nga dugal bu boobaa soo demee assemblée. <laughs> nekkoo député du peuple. je ne représente aucune localité. président ngay représenté. c'est vrai moo tax nga dégg nit ñi naan man député président la. Mm-hmm. depuis Senghor. ñi ngi nettali ni euh, Senghor ma na seeti sëñ fàll mu ni ko sëñ Fallou ni ko dama bëggoon diw nga defal ma ko député Senghor ni ko ah sëriñ bi kooku jànguwul mun ko tàccu dong lañ fa def te mën na ko tàccu tàccu rek dafay def te mën na ko donc depuis l'indépendance loolu dañul Sénégal donc dañu supprimer les listes nationales élire tous les députés au scrutin uninominal hmm. maanaam wàññi nombre de députés yi indi ko cent les vingt cinq représentent les Sénégal de l'extérieur soixante quinze yi des ñu découper Sénégal soixante quinze circonscriptions électorales mmh. par exemple mën nga jël plateau Médina ni benn député la ñu am hmm. Ngor Yoff Ouakam ba Grand Yoff benn député la ñu am Parcelles Assainies Cambérène benn mais boobu la député bi sax di mën a jouer rôle justement mmh. donc soixante quinze yi ñu fal leen noonu benn mesure bi mooy il faut supprimer le salaire du député ah bon il faut le loolu nag sama proposition au premier congrès du PDS am 1976 à Kaolack dans le discours introductif du président Abdoulaye Wade ca la nekk ci laa ko jëlewaat. député bi du dundee lan. voilà tey yow journaliste nga am nga sa salaire en tant que journaliste. Mm-hmm. nekk nga député continuel di liggéey en tant que journaliste. parce que loolu mooy tax d'ailleurs ñi la fal doo tàggoo ak ñoom. dégg la. <laughs> bu assemblée wootee parce que ku nekk xam ne ni député yi boo xoolee li ñuy liggéey par amatul trois mois. Mhm. sur les douze. ah boo ñëwee bu assemblée wootee. député bi ñëw def session bu jeexee ñu fay ko ay indemnité de session bu boobaa kenn dootul xeex ndax doon député. Mhm. parce que kii doon député daf ko ñu parce que daf ko gëm dafa bëgg liggéeyal askan wi. ces propositions là buñ ko nangoo def loolu mooy assemblée de rupture mais tant que ñu ngi conserver le même système. nekk ci le même système di ci dund. du am salaire waaye waaye di am salaire waaye mën na am oto ak carburant quand même. Oh, je suis d' uh-huh. jox ko oto. jox ko carburant je suis uh-huh. parce que dafay war di loolu sax dafa c' est obligatoire d' ailleurs. Uh-huh. c' obligatoire parce que bu ñu la nee par exemple yow yaay député département Bambey. foog nga mën a wër Bambey. ndax ah, wër Bambey. lan ngay wëree Bambey ak essence. ça c' normal boo ñëwee bu ñu la woo assemblée nga ñëw liggéey. soo paree ñu fay say ji sa indemnisation. jox la ko nga dem. nañ wut sax hôtel des députés parce que députés yi am nañ hôtel. Mhm. bu ñëwee nekk à l'hôtel mais est-ce que jaadu na tey yow nga nekk médecin à Kolda ñu fal la député. nga lem sa blouse lem say bàyyi ko fa. te xam ni réew mi ñu nekk médecin doyul jàngalkat doyul leneen doyul. c'est vrai. alors boo xoolee chaque année sur les cent soixante cinq députés yi ñuy fal. ay enseignants kese la pratique. voilà. Mhm. ay enseignants. ay médecins ay ingénieurs ay si si cela <laughs> ñooñu tëj nañ seen. bàyyi na seen liggéey yi ñëw toog. waay waay donc loolu jàpp nañu ni vraiment war nañ ko mën a dindi. Hmm. loolu nag ku ci mën ko nanguwul def. bul ñu waxati assemblée de loolu neexul a dégg lu mu doon ot toi que fii. ne toog di noos loolu lay gën a nuru nag. loolu lay gën a la vie chère au Sénégal quand même est-ce que du impacter élection yi nga yaakaar dund bi métti na defum toll nii wala yéen yëgoo leen ko. ah doo jël ko yéen classe supérieure attention. man bokkuma classe supérieure damay sant yàlla nag. ndax li xam nga li li li Djily Mbaye doon wax. Uh-huh. suma benn uh, yaay ju baax maa ngi koy nuyu muy xëy na mun naa bañ a tudd turam ndax du nit nit kuy faral di nëbbatu la. Uh-huh. wax ni ma benn bis da waxtaan ak Djily Mbaye ni ko tonton nu may def ba alal Djily ni ko man da nga am naa alal donc ah yow koy am nga mu ni ko soo demoon sama compte par exemple fekk ci sept milliards xam alal ju bari la. Uh-huh. mun ko mais boo demee yoral naa banque di milliards kon je suis déficitaire. Mhm. du luy alal del sol lu yiw di wax lu yiw di ñaan yàlla soxla boo am yàlla fajal la ko xam nga vie chère bi ngay wax c'est pas que damay soutenir président Macky Sall. Mhm. mais defal le tour du monde il y a pas un seul pays un seul chef d'État au monde. boo nga xam ne li Macky Sall pour soutenir population bi def nga ko va en France. Mhm. demal feneen ak feneen. litre d'essence bi presque deux mille lay jar. voilà États-Unis dem foo ci doon dem lu doon jaar benn euro léegi. Mhm. quatre cinq euros lay jar. c'est ça France on est à mille quatre cent cinquante poussière. mu taxaw di jàppale askan wi ba tout récemment mu commencé di leen envoyer par. ay ndimbal ay ndimbal. Mhm. dégg naa sax euh, benn leader bu bu koy critiquer ci loolu ma ni ko man nga ko critiquer. parce que quatre-vingts millions yow da nga ko soxlawul mais ñañ koy jox xam nañu lan la xam nga problème Sénégal c'est vrai dund bi metti na ci ñëpp muy man muy sama morom. ñëpp ko yëg mais suñu problème de fond du loolu. suñu hmm. problème de fond mooy muy man muy sama morom kenn du def loo mën. waaw dañu dañuy ñaari exemple laa la jox benn bi. Hmm. Hmm. Korité d'abord koor li nga ciy dépensé. mu ëpp li ngay dépense en temps normal soo wóorul korite tabaski tamxarit màggal gàmm. maanaam rationaliser wu ñu lu ñu seen dund. cant. 24 mhm. décembre 31 décembre Saint-Valentin ngénte ceeb dëj dem Màkka. anniversaire ngerle anniversaire ak yeneen ak yeneen ak yeneen. 12 mois sur 12 c'est-à-dire que bu ñu doon fay sénégalais bu dëkk 2 millions par mois. du doy te ñu dundee noonu du doy. ñaareel ba Sénégal ngay gis jigéen ju ñëw. yére bi mu sol xëy na trois cent mille la. waaw dàll yi cent mille la greffage bi trois cent mille la waxuma or de. Mhm. portable bi mu yore un million la ba pare mun naan. un million deux cent ba pare mun na dëkk bi dafa metti doy na waar de. loolu kenn mënu ko régler dans un pays donc suñu problème mooy lan nañu fexe. mais rationaliser. di def lu ñu mën. Mhm. mais li nga xam ne nag tey mooy défi bi guvernement bi war a relever te Covid bi. ak guerre bi am Ukraine war nañu ko mooy nañuy fexe ba li ñuy dundee ñu di ko bay nañu fexe ba ñoŋal suñu géej gi. ak am solo. nañu fexe ba ressources yi jóge ci réew mi nay pétrole nay essence nay zircon nay or nay leneen ak leneen nañu fexe ba ñoŋal ko buñ ko defee la bay ñu di ko dunde mhm. man sama waa kër boo laa laajoon tey dañuy wax ni lépp laa bëgg na ma ko yàlla baal ci ni ma koy waxee ba mu des ceebu jën. man bala may kontaan lekk laax lekk cere ndékkee ko reere ko añee ko macha allah ça me réussit. pare am wér gu yaram ah. mais bien sûr. c'est toujours jeune. <laughs> donc nañu fexe ba li ñuy li ñuy dundee li ñuy dundee. muy li ñuy bay. Ah loolu mooy défi bi nga xam ne. Hmm. c'est vrai que gouvernement bi ñu ci def effort. parce que daaw bi Covid bi amee président de la République dolli na vingt milliards ci budget ministère de l'équipement. Hmm. pour ñu jënd engrais jënd ay semences jënd matériel agricole. Hmm. mais doyul. j'estime que tey war nañ lu ma deux cent milliards ou plus consacré ko à l'agriculture. waaw ouais, ouais, on est à soixante-dix milliards je pense. nga génn mhm. diggante fii ba ba nga dem Touba Mbacké. lépp ay tool la. ay tool la lépp ay tool la ba kenn du ko béy. non tu vas des plaines comme ça. il suffit loolu jarul ngay. def ay études yu sori. ah oui. foo def forage ndox génn fa nit ci bay fa. tool am buñ bayee lu ñu jaay bay lu ñu dundee. Mhm. jur gi am lu ñu lekk. donc défi boobu mooy défi bi nga xam ni euh, lu gouvernement du Sénégal war na. et puis on perd beaucoup d'eau de pluie hein. mais bien sûr. waaw président Wade génne woon na ci cette fameuse. les le hmm? faut que loolu ñu poursuivre bassin de rétention yi xanaa moo ne am na ay dëkk yoo xam ne am na mala yoo xam ne disparaître woon nañ foofu. mais commence ñooy doon dikk. di ñëwaat d'ailleurs moo tax. Mhm. Euh, le seul point bi nga xam ni dama ko daan wax président euh, Wade à l'époque mooy le fait ñu arrêté projet revitalisation des vallées fossiles mhm. xam ne c'était avec le président Abdou Diouf ñuy jël ndox mi jóge lac de guerre gasal ko fu muy jaar ba mu doon si Jolof nit ñi di ci napp di ci bay jur gi comme tu dis di ci naan rabu àll yi même commencé di dellu. yi demoon di commencé di dellu soir c'est vrai qu'à l'époque amoon na ay problème avec le gouvernement mauritanien ba ñu indi ay tension mais je pense que ak l'actuel gouvernement war nañ mën a reprendre ces négociations là pour que loolu ñu mën ko delloosiwaat. d'accord fondation Sénégal Renaissance muy sa idée muy sa fondation comment est-ce que l'idée t'est venue de créer une telle fondation boo xam ne sénégalais yi bari mën nañ ci gis seen bopp quand même. alors en vérité du woon sama idée. dañu am suñu benn rakk bu ñuy wax Moustapha Fall ma di ko nuyu au passage qui est journaliste mu woo ma benn bis ni ma man daal monsieur le ministre man ko ah mu ma dama bëggoon ñu sargal Ablaye jaw journaliste. Mm-hmm. man ko ah bon c'est ñu waxtaan ci contacter d'autres amis ñu daje autour de notre président Moustapha Fall Thié à l'époque ñu organiser ko aussi CICES e daaw Ablaye Diaw ñëw occasion nga ma jox également ma remercier ay nit yoo xam dañu jàppale woon. Mm-hmm. ku mel ni Mbaye Gueye EMG yëkkati oto jox ñu. pour ñu destiné ko ab Ablaye Diaw le président Macky Sall yëkkati 5 millions jox ma ni ma fayal douane bi ku mel ni Modou Khoule promoteur immobilier yëkkati ñaari terrain ni ma jox leen ko Ablaye ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc bi ñu ñëwee vraiment ñëpp rafetlu idée bi ñu ni lii daal bu leen ko bàyyeeti ñu ne nañ ko continuer. Mm-hmm. def ay réunion ba finalement ñu transformé ko en fondation. ñu gis ni li Sénégal doon wut depuis 1960 muy la Coupe d'Afrique am nañu ko ren. boole ci ñaareelu qualification pour la coupe du monde kon jot na pour ñu sargal la football sénégalais. Mhm. mais football sénégalais boobu dafa am ci ku ko yàlla yàlla jaarale mooy le ministre Matar Ba. Mhm. bu nga xam ne kenn du nattable liggéey bu rafet boobu def na ko dans le milieu du sport parce que dañ ko war doon wax ministre làmb baax mais ministre làmb boobu moo fi indi coupe d'Afrique <laughs> comme quoi yàlla du juum. c'est vrai donc ci la ñu bi génnee ñu créer la fondation. ñu ngi fexe euh, d'ici peut-être euh, la semaine prochaine ou dans deux semaines ñu def évaluation euh, préparer la prochaine édition mais yemuñu ci loolu rek. Mm-hmm. dafa am parce que loolu par an lay doon benn yoon par at mois de juillet lañ koy def mais bu ñu ko defee mois de juillet août septembre octobre novembre décembre janvier dafa am benn session bu ñuy def bu ñu tuddee jaar-jaar. Mm-hmm. jaar-jaar mooy. dañu jël par exemple je donne comme ça un exemple. Hmm. ku mel ni Bocar Samba Dièye. waay xam ni fu ne la jaar. Hmm. ba tey mu bokk ci ñi ëpp doole dans les milliers de riz. Hmm. ñeneen ah mën naa citer yeneen per mun naa citer le cas de Youssou Ndour parti de zéro. à ce qu'il est devenu aujourd'hui à ce qu'il est devenu. ñu inviter les jeunes inviter les étudiants. ñu raconter. seen foo jaar ba egg si fii. am na benn ministre boo nga xam ne du ma koy du ma du ma tudd turam. mais dama ko gën a ndax loolu dañuy waxtaan benn bis mu ni ma fu ma dëkk ak fi ma doon jànge dix kilomètres loolu nee na ma su doon wàcc di ñibbi day boot saagam ci yoon wi lay jànge leçon ndax wóoru ko ndax bu eggee seen kër dina am sondeel bu mu jànge wala déet. ndeysaan. kooku bu demee di ñafe yaayam yorul baayam yorul muy góorgóorlu ba tey yàlla def bu bokk ci ña nga xam ni. waxuma sax la fonction de ministre mais nekk cadre du haut niveau dans ce pays kooku ak te dañu bari ci réew mi. te mu ngi dund ah ministre mi ngi dund mi ngi dans le gouvernement actuel ak ñeneen ak ñeneen je connais des professeurs d'université yoo nga xam ni dañu daan bàyyi bu lamp yi tàkkee ñu génn ci mbedd mi. dem ci poto lamp suufu poto lamp yi jàng seen leçon loolu dafay baax fi Sénégal tollu tey. xale yi ñu leen di woon ñu mel noonu modèle yooyu. modèle yu mel noonu. c'est vrai loolu moo manqué ci réew loolu dafa manqué ci réew loolu bokk na amuñu référentiel amuñu ci kenn ku ñuy naan mission yi nga xam ni fondation bi incha allah rabbi bëgg nañ ko def te première station bi ñu bëgg def au mois de janvier c'est c'est très important li ngay def nii loolu lu am solo la Euh, léegi euh, la famille libérale yaa ngi ci dox ba léegi pour nu ñu retrouver yow. ah oui loolu c'est mon champ du ma ko bàyyi mukk évidemment la famille s'est retrouvée xëy na dafa am lu des rek. dafa am lu des Wade ñëwagul ah. rek loolu rek moo des. Karim Karim ñëwul <laughs> waaw waaw mooy Wade rek <laughs> mais benn Wade ngi jëli sii. Euh, waaw ba may wan. le maire de de Biscuiterie. c'est vrai. n'est-ce pas. <laughs> te jàpp naa ni euh, li indi tànk kanam. di indi tànk ginnaaw bon ay wàdd ñooy ci récip bi ah. vraiment duñ fa jeex. Ah, ah, ah. na dañ ko ba xam nga témoin nga bi may commencé di wax les retours la famille libérale lu nekk dégg naa ko ci. Mhm. mais ñi ma doon critiquer ñoo mu gën a jege tey. mais au lendemain même de la suite de Wade nga ko commencé wax. absolument parce que dañu ñu gagné dimanche lundi matin. Abdoulaye Wade wala 9 j'étais dans le salon du président. Mmh. parce que bul fàtte ni amoon nay jamono gaa yëpp ñëpp dawoon nag wax dëgg gisatuloon kenn pratiquement bi mu ñëwee mun ma alors comment tu vois l'avenir du parti man ko président sa ñaan moo nangu ko mun waa ah bon man ko waaw parce que am na benn leader politique bu nekk ci opposition bi bu doon wax ni le jour n'est pas loin où certains seront pressés de regagner les frontières man ko kooku bu gañe woon tey fii ñu toog nii duñ fi toog tëj na mhm. frontières yi jàpp ñu yóbbu ca kaso ba ki gañe sa doom la te doom jooju yaa ko xamaleeg sénégalais yi yow yaa wax en 2004 au cours d'une rencontre enfin avec Macky mes chantiers de terre il est travailleur nga ne xaal bu nekk ñam naa ko waaye bu safe ni suukar musuma ko ñam <laughs> il fait pas de bruit il est efficace il est efficace <laughs> man ko ñaareel ba uh-huh. yow yaa ko yóbbu ci sëñ Saliou Mbacké yaa dem ba ci sëñ Saliou ni ko ñaanalal ma xale bi ndax su ma fi jógee mu remplacé man ko kon suñu demee tey ba kooku remplacé la sa ñaan moo nangu. si mun ma est-ce que tu es à le défendre devant le comité directeur man ko oui on était lundi mardi mercredi jeudi en conseil des ministre mu ne n'attaquez pas Macky Sall mettez-vous à son service jàppale leen ko jàppale leen ay ministre en conseil des ministres en conseil des ministres. bi ñu gagné dimanche est-ce tout ça. mais bien sûr loolu muy jeudi. ñu jógee fa def passation de service il est rentré à Fann convoqué le comité directeur ma ñëw mu jox ma pour ma def benn exposé les alliances du parti jour boobu laa jëkk a le problème de nos liens avec Macky Sall en disant il faut que la famille libérale se retrouve se retrouve ñu accompagner Macky Sall bu jeexalee ñu xool parmi nous le meilleur profil. ñu jàppale ko keneen encore mu continuer. et j'ai dit au président Wade que yow yaa waxoon ni. da bëgg les libéraux garder le pouvoir pendant cinquante ans c'est l'occasion donc depuis lors yaa ngi ci maa ngi ci ba ma koy wax nag ay xat sañ ma est-ce que du Macky moo yàq mbir mi tuur ci avec l'emprisonnement de Karim Wade non non pas pas yàq euh, xam nga dama mës a wax ni diggante Macky Sall ak Wade baay ak doom la mhm. lañu séq te lu ñuy wax ci mbedd mhm. la séq ñoom ñaar te mosul dakk hmm. lu ñu séq ñoom ñaar du lu ñuy wax ci mbedd Macky xam na ko Wade xam na ko man xam naa ko am na ñeneen ñu ko xam. te it bari ci libéraux yi ñoo nga xam ne fu ñu du sax libéraux yi mais sénégalais mais comme moom parle de libéraux bari na ci ñoo nga xam ni saa bu ñu nekkee ci yenn situation Macky Sall la ñuy gis mooy taxaw seen wet. te kenn du ko yëg mbaa ña ko yëg duñ ko wax ku feebar mu faj ku am dëj mu dëjal la ko ku am problème mu la ko ci la mu mën. te ci kenn du ko yëg. te kenn du ko yëg. il ne à l'aise que su toogee ak ñun ñi nga xam ne yàgg nañu ak moom su sommes ses frères libéraux loolu aussi il faut le reconnaître d'accord et puis on n'est pas des ennemis merci beaucoup on arrive à la fin de cette émission lan ngay tëjee sant la gërëm la bu baax euh, rafet vraiment waxtaan bi parce que ni ma koy faral di waxee un journaliste du invité nit pour di ko coincer. da ngay invité pour mettre ko à l'aise la nekk ci xolam tey am na lu ma la wax loo nga xam xëy na bëgg ma ko woon génne. mais relax bi ñuy waxtaane waaw mooy tax nga di ko génne nit. mun ci mais on invité aussi c'est un partenaire de plateau. man loolu laa gëm ah. c'est ça voilà malheureusement. on invité c'est un partenaire kenn ko galgal. malheureusement ñëpp gëmuñu loolu donc vraiment maa ngi lay remercier ci <laughs> loolu. di rafetlu en tout cas liggéey bi. bokk ngeen ci organes yi nga xam ni ci réew mi ak ci bitim ñoom lañ gën a suivre. parce que kenn mënul tudd ñetti organe Sénégal te boole wuñ leen ci. Mm, loolu bu ngeen ko yëgee bu ngeen bu ngeen fekkee bu ngeen fekkee. ak yan la quand même ngeen rëy dem feneen. parce que bëri na saa ñu woowee nga nangu ñu émission bi. xam nga média boo ci nekk nga nit ku nit ku modeste nit ku woyof ko wàccee boppam. mais àddina amul solo. Hmm? li ma mën li ma may tey ma am ñaari chauffeur yore garde corps di dawalal sama bopp sama oto du ma ànd ak kenn. Mhm. c'est parce que quand j'étais au pouvoir dama ko daan def. Mhm. disponible ah. ah oui vraiment di seet si ñëpp. su ma bëggee dem làmb ja dem su ma <laughs> ah bëggee dem soirée dem su ma bëggee dem plage dem. c'est ça ndox sama soxla Sénégal nit na wàccee boppam rek. parce que yàlla ko fi jar vraiment yàlla defaral la jàmm ju bëri. amiin jërëjëf sàmmal la sa njaboot. merci beaucoup merci beaucoup dimbali la sa projet yi nga am ci politique nu mu taxawoo te nga fekkee ko. merci beaucoup ñu ñaanal sénégalais yi ñu doon seetaan di leen dig dajee ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego point com jërë ngeen jëf.